هل في الورى من زكى عنا المستوى ورث الخديم ولاية الدم دبي هل في الورى من زكى عنا المستوى ورث الخديم ولاية الدم دبي فالمصطفى ورث الخديم بفضله وبجودي وسجائي دمود باي والمصطفى ورث الخديم بنوره وجماله وجلاله دمود باي فالمصطفى ورث الخديم بسري وبإلمه وبإلمي دمود باي فسم بكون المستوى قد جاركم قد ساركم ما أخلي يا أخلنغاي ين واكا جور كنيو لين بو باخ ور ngeen ngir mustawa um lammi mbakke jawa walaay yaa ax la ñaaxeen ñaaxu leen Seex Musaa bi karaami dem ñaaxi ngaay jurbel du leen jarfal ndaxam ngir Musaa ñaagaan na leen bi karaami dem ñaaxi ngaay yaa ax la mbaakol bakku leen Seex Musaa bégalaan na leen bi kalaami am ngeen médaay daaroom ya mooy Tuuba wow suma bi ku fa mënta na siyaare ji ñaaxen mbaate ngaay yaa ahmadum nil muhammadin nil muhammadin yowmal qiyaamati sant sunu way wi waay cheikh Moustapha Baye cheikh Ahmadul Muxtaar cheikh Moustapha yaa neex dal nga xel sëriñu cheikh Njaay alkarim yaa neex xandal dal nga xel man nga roo fi àgguloon jëbal sa baay wa mat gumba yi moon la fay dëggal fa noon góor ak jigéen yaa leen di jox ay cangaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay lee te doonu mboolem jërëm yeeg baay yaay seeni baay yaa nuy teral yaa ñuy yërëm di ñu may dërëm yaa nuy defal yaay ñuy waay yaayo teraangay mag ña bamba yoraale woon moo tax nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraangay waa kajoor ak waa bawal yaayor sangu buur yi fi daa lambaay wa man nga naar wa ma du walaf kenn reer yaay tiitaru baa doola yeeg ñi fi sant njaay yaa musawaab nu musawaab nu musawa yowmal xiyaamati nu fa ay médaay miskin yi daan jooy seex bamba ci wam sa sin ferloo nga seenu rongoña yaamat laqwaay mag jàqatul ndaw tiitatu réew mépp a bég ngir muslukat yi musal nga leen yaay fii yaate jógub lislaam ñu soqi ko bax doo yaay jënwar a yaate seen mbaar mi naay yaa boole galli boole jëli yëpp jar antal imaayatu li ahli naay yaa am wilaay yaa boole donga boole bokk yëpp yor yàlla nga fi dem na njaama dundal faw waay taalu muridi le yaa ko yor yaatee fay maa lay xambal sa taal du fay saw du daay يا مجتبى ابن المجتبى ابن المجتبى يوم القيامة بوللين مجسن غاية موسى كلام الله مون موسى وجل جرام فكي جلي متلب جتاي Moussa Gami mooy lappatoo mi la yaa moom juma je beeg ña gëmoon sa gaalug muridi la yaa ko yor bambaay machine maay emprunté ba di xalal sa machine duraay nooru wilaayati mooy machine ba wosutoo fuxtari jaala murid yaay seen weeru haay sag leera jolli fi nun ba leeral waa tugal moo tax ba labbay wàcci Jurbel nan la kaay sag leera tax nuy xorxaral bay xoy xoyal yaa tax ba labbay faale wunuy saalaay sag leera leeral njàmbur ak siin ak bawal leeral ba leeral ba mboor ak i caajaay yaa muntaxaam nu muntaxaam nu muntaxa yawmal qiyaamati boole leen nu jàmbari yawaay antal muqaddimu wal xalifatu fil wara baadal xadimi yaa defoon kada baay giñ naa ni te xalifatu yaa ko gën nda sa baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay dendale la xulafaa wi xaw na araam yaaram du gam-gam loog segam yemu leeni baay leeru cosaan nga xewoon fa mbàkke foyoo ko yow labbayka ca musula wuy siwul mooy saay-saay nawarta sarxan suma xarban mustawa samsul waraaya faw xaweer ab leeraay xutba ngi ni gaa ñi e wéy siwun dañ laa xamul géej gaa ngi ni am xaayaan ngi mooy wey ba xaay yaay mbambulaan na daa sangu leen yaay ndox mu teey ku la tabbi tooy ku la mandi taay yaa murtajaanu murtajaanu murtajaab yowmal qiyaamati ni ñu yaakaar na lisaay ku la am di ree ku la ñàkk ku la roy di ree reew yand mbaa laaxu jafaay waajoo safoo day gën di safta dootu nu soob ku ko weddi seet ko seet dootul ka sey baraay yal nañ la fal ta nga nu fal nu bi jaayikum ko fal nu faale brang ma la ko kuraay waajoo safoo dëggandi sab ta dootul soob ku ko weddi seet ko seet dootul ka sey baraay ku la xas ba soob day gën di soob te dootu nu saw ku la soob mu sol ci naaru góor di tëbal di raay ku la xas ba day gën di soob te dootu nu saw ku la soob mu war ci naaru góor di tëbal di raay yaan nañ la soob yàlla na sal yaa ku la so musal jalaabi mbaa mantu baraay ku la am diree ku la ñàkk jooy yàlla nañ la am yaa gën baay ak xarit yaa gën ndey jaay cheikh muhammadul musawa bawi cheikh ahmadul muxtaar yaa nampu ngor yaa donu ngor yaa donu mbër yow yaa rewe di nga jàllaloo duñu nit ñuwaay yaay musawaaf ma ñu tànne kokki di ko beli haat di ko beli haat ba ca balla aysa zamaami baay ngay musawaaf ma ñu tànne kokki di ko beli haat di ko beliyaat ba ca balla cokkeel seen na jaay zeywaame taw na fi soowal fi penku bi koo may ma sarse bitig bu raw bi sukaay du xeppi xool ngir ker sa yow ngeppi dew say kaddu wecci na bong bu buur ci ñu yor mi daay haya xutbul wara ya mustawa بياك رب الخيب منغزاي وأتال عمرك في سمانك ربنا يا تغمريد لزيارة كي جوخي إداي ويكد ودان ويسيخ مصطفى بمخي كفل ما كوي ويل من مصطفى دمو دي باي موسى خديم المصطفى مهديتي وي mi la mustawa ku ko feeluwul mooy saay saay yaa mutadaamnu mutadaamnu mutadaa habliiri dal wari dal xadiim ka doon sa baay yaa rabbi salli ala nabi muhammadin ma ali wa xadimi ko kaadi baay ya rabbi salli ala nabi muhammadin ma ali wa xadimi ko kaadi baay